ahousubillah min a seytaani rajim bismillahi rahmaanirahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wajal kalaami rasidan wa murshida wa fikrati nawwir wa bi arsida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen uh, ziare waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi mun Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal bu baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax a baax a baax ni ki noonu la ñuy ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi janook ñun moo xam ci réew mi la ak ci bitim réew suñu borom defal la jàmm waaye saa su nekk rek ñu dellu seetee nag yéen ci jataay bi nga xamante ni ñi ngi koy amal saa su nekk ngir di ko laytaaye lii nga xamante ni mooy màggalug xasida gi nga xamante ni mën nañ dem mboolem waa axalu xasida ñoo koy taxawu di ci ànd ak nag sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu fële ca Touba ci daaraam ji di jaalibatul maraaxib waaye di jaajafal bu baax a baax a baax a baax a baax Touba Vision ak Guy Mbind TV ci seen wàccaay yi nga xamante ni ñi ngi koy amal saa su nekk di rëpp ñuy waajal li nga xamante ni mooy liggéey bu rëy bii nga xamante ni moom lañ dëgmal di nuyu sëriñ Abdoul Aziz Diop Guy Mbind TV mu wane ci ak xarale gu mat sëkk Touba Vision buñ fa tuddee seen Xaadim Seck rek day mel ni matale nañ ñëpp nii kenn dootu ko présenté te ci waxtaane diine waaye waxtaan ci sëriñ Touba waaye waxtaan ci xasida yi muy sëriñ Ahmadou Mbacke ñu gën ko miin fii ci Daarul Moxti macha allah ñu fas yéene seq ak moom jataay bu gàtt rek ay soññee rek du jëm ci li nga xamante ni mooy xasida yi lu jaadu la lu yell la bis bi nga xamante ni ñi ngi koy dëgmal samedi premier décembre fële ca Touba jaalibatul maraaxib ñu ciy def ay soññe soññe yi rek saa su nekk li ñuy waxtaane duñ ko mën di génn muy ci xaside yi ndax màggalu xaside yi la war a wax kon saa su nekk moom la ñuy wax kon su nekk dina jaadu bis bu set ñu jëlee leen ci ay tomb yoo xamante ni ba tey ci xaside yi lay doon tey nag li ñu fas yéenee waxtaane mooy fonkeel gi nga xamante ni it war nañ ko fonk xaside yi ak lenn ci njariñu li nga xamante ni mooy xaside yi fas yéenee jébal suñu suñu micro rek sëriñ Ahmadou mu fas yéene ñëw dimbali def ay jàngat ak ay soñña yoo xamante day jëm ci képp koo xamante rek yaa ngi ci li nga xamante ni mooy yi aoudu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا سيد مود مانغ لي فاي دي زيار دي زيار سيد عبد العزيز جوب دي زيار بو باخ سيد خادم سك دي لين دوكال بو باخ تام بيغا خامني yene ngi koy taxawé ci di feeñal janggalem serigne bi ak di feeñal liggéey yi nga xam mom la mourid yi di taxawé ci bërëb yu yu fasanti ko té muy liggéey bo xam kenn ku ne ci murid yi waroon na ko mën a ngi leen ci ndokkel di ñaan mbolem li ngeen ci def yalla nongo ko ci daraaje serigne touba ginaaw lool nak bis bi nu jublu té muy bisub jang qasida ñu tudde ko màggalu xasida yi te ñu di ko defee fa fa kër sëriñ Xamsatu moom sëñ bu loolu bis bu rëy la bis bu am solo la bis la boo xam ne itam dañuy sant yàlla ci baaxe gém nu ko baaxee ndax tawféex rekk moo ko mën a maye xam ngeen ne bis boo xam ne dañ fee daje di jàng xasida sëñ Tuubaa tàmbalee ca suba waxtu ba waxtu wa delsi rek mën nañ ne te mbolo mo fay Juni di ay junni junni junni nit lolou bisub tuddu yalla la bisub tuddu yalla la bisub salatu ala nabi la te lolou jataay yoyu buñ delloo ca njëlbeenu wénu l'islam dañu ne jataay yu amon la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genn ba tay fekk ci jakk ji mbolo mo xam dañu tuddu yalla ak mbolo mo xamne dañuy jangal dañuy dañuy jangalante ay masala mu ne mu wax ñi tuddu yalla ne yeen li ngeen def lu am solo la waye man ginaaw yalla dama yoni may jangale damay dem toge ak ñay toga fa ñay jangal ñay jangalante gis nañ tam hadith bi abu daawuda netli te muawiyah ibn abi sufyan wax netli ko wax ne sayidna muhammad da ma sa genn gis sahaba yi di nekk ci jataay mu laaj leen waaw yéen lu leen tax a toog ñu ne ko nun de dañuy sant yàlla ci xéewal yim ñuy defal yim ñu defal ak yow xéewal gim nu xéewale yow sa jëmm muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñaar la ñuy waxtaanee mooy sant yàlla ci xéewal yi nga xam ne mu ngi ko defal te jaare ko ci sa jëmm yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi laajaat leen ndax loolu rek moo tax ngeen toog wala am na leen lu ngeen def ñu ne ko loolu rek lan fi def de nee na yonente bi ne leen. yàlla ci bopp moo yabal Seydina Jibril wax ma ne ma mu ñëw wax ma ne ma xamalal gaa ñi ne leen yàlla mi ngi puukarewu ci kanam malayka yi jat waa jataay bi te ñoom lañ doon def mooy sant yàlla ak waxtaane mbaaxu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa te xasida yi loolu xasida yi xam ngeen li cëpp salaatu al nabi la kon kon jataay boobu jataay yi gën a rëy ci la bokk yi gën a euh, màgg ci la bokk bis la bu am ci salaay ci diine bu bu boo xam ni itam am naa yaakaar ne maanaam Sëñ Tuubaa dana ca bëgg dana ca bëgg lool ndax xam ngeen ne <clears throat> ah, maanaam bisu tudd yàlla rek damay bañ mu gudd sax waaye dama am sama baay boo xam ni sëñ Maas Mbàkke lañ ko wax yàlla dogal nelaw na léegi dafa am jëta màggal kum daa def fële ca Ndakaaru mu am benn bis ñuy màggal ci guddi gi mu am fekk fi foofu ca Ndakaaru xam nga daa doy waar am ci bërëb ba ñuy ba ñuy màggale ca wet ga dafa am maanaam fu ñuy jaaye eh, loolu ñuy aaye am ñollu waaw naan ko naan ko ñuy aaye <laughs> li suñ mut la daa tudde ay tubaab eh, tubaab lu ñu jaayee naan googu yàlla dogal nag am ku ci jóge ñëw ba ci baas bi dugg ci biir baas bi de ci biti baas bi ci lëndëm gi foofu la sukk nii rek wéer boppam ci baas bi nii nekkate bi fajare ci fajar bi ñëwee di ko xool nekkate faatu na nekkate sedd na gu faatu na ci bëccëg gi nag sëñ Maas di mu wax ne ma moom day incha allah yaakaar naa yàlla dana ko du ko topp dara ndax ginnaaw ñëw na ci fi doon sant sëñ Tuubaa boobu nag jamono yoo xëy ci laa toll ci di jàng ak yooyu maanaam ah, quoi way sëñ bi kii de nu mën a mucc nag jaaxal na ma xam moom dafa naan ci yi ñu naan ba <laughs> waaye ginnaaw bi dama yàlla defal tawféex ma xam ne waa ji la ci sëñ Maas wax rek moo jaam mooy moom dafa jóge ca lëndëm nga ñëw ci leer gi fi ñuy sant Sëñ Tuubaa di fa jàng xasida Sëñ Tuubaa yi ñaareel bi itam suñu borom dafa wax ci xadis bi ñëpp netli Buxaari ak Muslim te imaamu yi jiital ko ci eh, Riyaadu Saalihiin yaakaar naa dafa wax ne dafa am jaam boo xam ne dafa rey juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent dégg ñëw ci ab borom xam-xam di ko laaj ne ko man kat ndax yàlla dana ma jégal li ma def daa rëy mooy rey naa juróom-ñeent fukki nit ak nee na borom xam-xam ba mu ne ko yow de yàlla du la jégal ndax li nga def daa rëy yow moom doo am njégal mukk mu daal di koy faat muy téeméer ba mu demee ci beneen borom xam-xam borom xam booba euh, xamal ko ne ko yow de yàlla dana la jégal ci sartu nga génn ci. bërëb bii nga xam ne bërëbu bu lëndëm la bërëb bi nga xam ne fi dañuy mooy yàlla dem ca bërëbu nit ñu baax ña ba mu génnee bay dem ci yoon wi nag mu faatu bi faatoo nag malayka yërmaande yi xëccoo ak malayka yi mbugal yi nee na maanaam ñii ne kii dundam gépp da ko sànq ci lu bon ñee ne ko da doon jëm ci lu baax da doon génn ci lu bon di jëm ci lu baax suñu borom nu natt leen fu mu ci gën a jege rek ñu boole ko ci ñooñu bu fekkee daa gën a jege dëkk bu baax ba ñu boole ko ne moom dana mucc yàlla dana ko jégal lépp mu dugg àjjana su fekkee nag fee la gën a jege fa mu jógee ñu yàlla duma ko bañ nattee nee na tuuti moo gën a jege waaye suñu borom daa wax suuf si àndu si la mu àndu si li ma bëgg wax mooy kii nga xam doo génn ci lëndam di ñëw ci leer gi kooku ci mucc la jëm bu ja faatoo amul sikk ne yàlla dana ko jégal te dana ko dana ko ma amaat ci beneen tegtal sax bu gën a kii mooy te bi daa wax ci xadisu Buxaari ak Muslim yëpp wax ne maanaam dafa am malaayka yu bari yoo xam ne yàlla da leen sàkk ñu nekk ci kaw suuf di wër bërëb yi ñuy bërë bërëb yi ñuy jaamoo yàlla nee na ku fu ñu gis nag mbooloo mu daje di tudd yàlla dañuy wootante ne taalaw ila bughiyatikum kaay leen li ngeen doon sàkku lépp mu ngi fi bu ñëwee nag gis mbooloo mi neen dañ leen di wër tegalante ñoom malaayka yi ba ci kaw asamaan sa nee na bu demee ba jotaay ba jiyaan nag ñu dellu fa suñu borom di ko nettali waaye nee na suñu borom da leen di wax ne jéggal naa leen ñoom neen dana am ci malaayka yi ku ko ne diw mu de ma nga foon waaye moom lu baax tax koon a jóg baaxut itam dafaa ñëw rek romb gaa yi def mu nekk fa suñu boroom ne ko teewul jégal naa ko ndax kal ulaayikal qawmu laa yashqa jalisuhum maanaam ñooñu nit lañ ñoo xam ne kuñ jataayoo rek ma jégal la te loolu ci bërëb bi tudd yàlla yoo kon jataay yooyu yu mat a fonk la dinañ wax lu bare bari ne suñu réew mi li ko téye mooy xasida yu bari yi ñu jàng rek ak bis yi nga xam ne moom tawfeex la moom bisi xasida yi nga xam ne tawfeex la waaw nga xam ne moom yàlla nu ko defal moom noo ngi sant noo ngi ciy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla mu nangu ko waaw waaw bis bi nag moom da cee gën a rëy ndax ndax moom mboolem ñiy jàng xasida ak ñi koy dajaloo ñëpp ñoo ko maasee ànd di ko defandoo bu ñëwee ñoom ñëpp toog man dem naa dinaa ci dem ay yoon léegi daa xat a xat ba waaye maanaam moom mbooloo mu kenn xamu nu mu toll ñooy daje di jàng xasida ba xam ngeen xasida li ci ne mooy tudd yàlla dégg nga Sëñ Tuubaa sax mu wax ne kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat waaw wax ne mbindam lépp tudd yàlla la ak sant ko nga ne salaatu na nabi moo ci ak tagg ko julli ci yonte bi ak tagg ko ak tagg yàlla ak ñaan yàlla ak istighfar muy jéggalu suñu borom ak it sant yàlla ci xéewal yi mu ko defal may yi ngeen gis yëpp mu di ko sant loolu mooy xasida loolu kon tudd yàlla la gu rëy goo xam ni dara gënu ko rëy te itam barke bu rëy mu nekk ci xasida yi fi ne Sëñ Tuubaa dafa ne yàlla du ko jox ci mbind loo xam ni mosu koo jox mbindeef ana la nii fil xatti maa lam yëkku ni wala yëkkoonu xaaliqi li mumkini maanaam yàlla jox na ko ci mbind loo xam ne na mosu koo jox mbindeef te dootu ko jox mbindeef itam maanaam mbindum sëñ Tuubaa dafa dafay dafa am dafa wuuteeg mbind yi ci res ndax léppam dafa balle ci alquran loolu la sëñ Tuubaa wax sëñ Tuubaa dafa wax ne atat fi imtidaaxil Mustafa ayu rabbihi bihi llahu asra lil ula wa huwa yaruju xaliqun mawlaahu tuxraju maanaam tagg yi muy tagg yëpp ci aay sunu borom yi ci alxuraan sunu borom ji fala ko ballaloo fala ko gene mooy li mu wax ne lubbi mu nawwarun bi nuuril wax yi maanaam leeru ko wax yu gi te mooy waxi sunu borom ji tabaaraka taala mooy leeral xolam mu di ca ballalu di bind te itam day mbind moo xam ne dara caaxaan amu ci yeneen way ci des yëpp da gis day am xësal mooy di wax ci ay jigéen ak ay ay ay yu gent yëpp nag moom suñ tubaabam da ko da ko da ko da da ko far ci mbindam moom dara wax ne mbindam rus na ce boole leneen lu dul maanaam lu sell rek ndax tag gim ci tag yoon bi sallallahu alayhi wasallam wax na lam yanxu xatt ya fudulun aw kadib wali kitaabati ridaau yen jasib maanaam mbindam lépp luy ay ay ay larax du ci du ci ne wala lu dul safaan te itam ngërëmul yàlla waxtu na rek day day day rot ci mbindeef tey day rot ci ci ci ci mbindam mm-hmm. wax na ne jaawartu rabban kariman saana li qalami bil mustafa an laxal aliyaa fa sanadi maanaam jëmmi tudd ay bërëb yoo xam ne sax amuñu solo ci ci ci wax ji lool loolu rus na ko ci du ko ci boole kon njuumte itam amu ci lépp lu jub la lépp lu baax la lépp lu wér la li mu wax ne yaqi xila xilaami yal xata wa sëhwa wax na itam yàlla nangu na lépp wax la joo xam ne yàlla daa nangu ne qad baana anna allaha lam yalid walam yuulad wa minni taqabbalil xilam xalam xalam taqabbalil xalam mooy yàlla nangu na loolu wax na ci lu bare bare qabila rabbul aalamiina kalimi wa sarra xayral aalamiina qalami maanaam yàlla nangu na mboolem lim bind te itam eh, sunu bor yonent bi sallallaahu alayhi wa ciy bëgg waxtu ne da ci da ci bëgg <coughs> kon loolu mooy mooy mooy mooy xasida di loo xam ne itam moom la yàlla gën a sopp ginnaaw alquran ak xadis moom la yonente bi gën a sopp itam ginnaaw alquran ak xadis ndax yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko wax ci leetar boo xam ne yonente bee ko ko bind mu ngi ci majmaa bi séeb daan moo nga xam ne sëñ bee ko net li wax ne yonente bi da ko wax wàqante moom ne ko li nga bind ci man bind ko ci yàlla subhaanahu wa taala loolee day na nga xam ne ahabu ilallahi taala wa ilayya min gayri alqurani wal xadis loolu alquran ak xadis loolu loolu loolu la ci yàlla gën a sopp ma nit loolu ma ci gënal kon mbind mi day mbind mu rëy rëy rëy moo tax mu daa wax ne xasidat yi faaqat xasaid al kiram moo tax mu xasida yi faaqe maanaam maanaam ëpp doole yeneen xasida yi suñu borom itam àgg ci di di di ci puukarewoo eh, mbooleem yonente yi masalan suñ di wax ne baaxa bi xattillaahu kulla mursali maanaam yàlla dana puukarewoo fa kanam yónente yëpp sama mbind wax na itam noonu it la koy puukarewoo fi kanam jëf yi saxaaba yi doon doon doon doon jëf baaxa bi xattiya fiala saxbi radiya anhum wa anaara lax bi wax na ci lu bare bare bare wax na itam ne ba ci nit ñu baax ñi fi jaaroon itam ci wàllu yi ñoo ñëpp yàlla dana puukarewu fi seen kanam ci sama mbind lay jël di wax ay darajaam ak bég ci rek ci seen kanam loolu mooy puukarewu maanaam te mooy li wax ne baaxa bi xatti ya ibadallahi assaalihiina allahu muxsillaahi waaw loolu wax na ci lu bëree bëri ba ci kuréelub suñu borom bi wax na itam ne mbég mbind mi dafay dafay dafay dafay sabab mbegum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida katabtu tasamal muxtaaru bu may bind ne muxta sayiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam day day muuñ bég kitaabati tubashirul musafaa wa inda iblisa tafuuqu midfaa mbind mi nee na day bégal yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye moo raw kënu ci iblis boo gisee iblis ak seytaane seen yitte mooy maanaam njàng mu xasida mi nuy njàng mu dugal ci ay sikk ak lu len fab bi lutax ñuy wax yeneen ni wax wala ñuy jang yeneen wala fa ki mbir mm-hmm. lool dama yakkar mbirum setan la ndax ginaaw keñu moko raw fi mom te weñ googu xam nga neexul ci mom buñ ko koy dóor te bokoy bokoy jang yang koy dóor weñ googu ah, keñu googu yang koy yang koy yang koy dóor mm-hmm. motax yitte moy nit ñi di Fabiku. sik yi nga gis ci ci ñi ñuy jàng xasida yëpp gis ne fofu ci mbirum yu ko def rek ngir yàq motax nun nu wara itam xel ci walu yoyep kon daal xasida ma xasida nag mooy lépp lu Sëñ Tuubaa bind rek danaa ko wax lu bare bari téere xam-xam yi ci la bokk nga xam ne mooy làmpo bi lay niital yoon wi waaye téere yi tudd yàlla itam muy salaatu yeeg yooyu noonu loolu it mooy gaasuwaal bi nga xam ne mooy duy soxal nga xam ne ci ngay doxe Sëñ Tuubaa nag dinay wax lu bare bari ne boo ci dox doo doxee sa sago loo dox itam sa vitesse vitesse sëñ bi la la ñu dox man tarixa yëpp tarixa bu ne boo ci bokkee borom tarixa ba ci dox yi nam ngay dox waaw léegi nag yàlla def na sëñ Tuubaa mooy ki gën a gaaw vitesse moom ci gaañi boo dee boo dee tudd yàlla ci tudd yàlla mi yaa ngi dox ci vitesse moo tax kon baax na yow mi ci dox nag ndax dox jëm ci yàlla lépp doxub xol la dox boobu ngay dox nag baax na nga ngay gis fi ngay jaar nga xam yoon wi ba doo ba doo ba doo tërëf mm-hmm. doo doo jàdd itam leer googu nga xam ne moo lay niital yoon wi nag mooy leeru xam-xam yi mooy leeru téere yi nga xam ne moom la sëñ ci xam moo tax yooyu it mënta ñàkk mm-hmm. sëñ na ne mbind mi mbindam mi ngir wax daraja yi mbind mi rek ak bi ak ngir war ne waris na màggal moom moom lay indi nii te bokk na ci li sëñ bi wax ne maanaam lépp lum bind day yéeg wuti aras maanaam mbindam dafa am jokkaloog aras goo xam ni wax na ci lu bare bare bare bëri wax na ne mbind mi day yéeg jëm ci jëm jëm aras minni lahu qasaidi waraf wa rufiat lil arsi loolu wax na ci lu bare bare bare bëri tarqa ilal al azimi xatti ak lu bare bare bëri wax na itam ne <clears throat> mbind mi day yëngal xoli am biyaw yi yëngal nag bu ñu ko waxee ci ci luxal arabiya li ñu mooy mbégte yëngatu mbégte lañ jublu ndax loolu baat boobu dañ koy wax ci ci ci arab ihtaza ilaa nangam loolu dañ koy wax ngir ngir jublu ci ne bég na mbégteem xol mu rëy Sëñ Tuubaa wax ne am bi yow yi ñoom it maanaam mbind mi day yëngal seen xol yëngatu mbëgte haajat qasaid yi qulubal ambiya noonu it la ko wax itam ci ñi yanu aras malayka yi nga xam ne ñoo gën a jege yàlla di ye a baax bokk ci gën a euh, baax te yanu aras sëñ bi wax na ne day yëngal seen xol haajat qasaidiya qulubal xamala lil arshi wa hiya busharun lil kamala malayka itam noonu la leen di yëngale moom moom mbind mi haajat quluba jumlatil amlaaki qasaidi bi nuuri dil aflaaki kuréelub suñu boroom itam ak malaykaam yëpp noonu la leen mbind mi def te mooy xaajat makaati bi quluubal jundi wa dikruhu alxakimu kanzun indi wax na itam nit ñu baax ñi ci kaw suuf itam awliyaaw yëpp noonu la mbind mi def seen xol xaajat qosaayidi quluuba saalihin wali yaquudullahu sooli kulla xiin képp koo xam ne sa am na dara ci tombub leer nga xam ne nar ngaa texe wala nar nga dana mucc ngay nit ku baax di nit ku yàlla bëgg mbind mi noonu la yëngale sa xol mm-hmm. noonu la sëñ bi wax ne xaajat qosaayidi qalba kulli man lahu saadatun wa linqaadal aman ba ci aras si suñu boroom ji noonu la ko waxee itam noonu la ko yëngale yëngatu mbëgte ak bëgti ak neex ko te ma li wax ne ida katabtu tazza arshullaahi jalla wa xaaba kullu jaanillaahi wax na ji lu bare bare bare ci waxal googu ida katabtu tazza arshul baaqi wa sabaxat malaayikatu tibaaqi ida katabtu tazza arshul maliki waxtaza bi tasbixi kullu malaki maanaam saa yu aras yëngatoo ba jaayu ba bëgg ci mbir mi malayka yëpp dañ koy dañ koy dañ koy feelu ñoom it di sàbbaal sunu borom ngir mbégte waaw kon li mbind mi tiim nañ ko waaye noonu xamuñu sax dayob dayob riyaay bi <laughs> waaw waaw loolu suñ wax na ci lu bare bare bare bare waaye nag wax na leeral na xasida gi mu tënkee lahu rabiul awwal leeral na ca tarjumaan ja ne ihtisaaza ikraamin wa ijlaal maanaam yëngatu bégal maanaam maanaam teral ak bëgg rek ak màggal mbind mi noonu la yëngatoo maanaam baat bi ni nga koy déggee ci wolof bokkut ak nam demee ci dëgg-dëgg loolu laa bëggoon a leeral rek kon loolu gis nañ Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam daan wax ne eh, Saad ibnu Muaas bi mu faatoo aras dafa yëngatu waaw kon loolu mbég yëngatu mbégte rek lañ ci jublu te loolu sëñ bi leeral na ko ci bërëb yu bare bare bare bare loolu nag moo gis moo tax murid yi itam dinaay wax ne boo gisee buñ koy jaay jaay buñ koy jàng seen xol di yëngatu seen jëmm itam àng di yëngatu loolu xëy na rek mooy sabab bi ndax wax ju neex rek ju bokkut ak xasaydi sëñ bi day yëngal doomu aadama di yëngal sax mala yi gis nañ yonente bi bu masaali tukki bu wasaawar giléem yi dafa am ku ñuy wax anjasha moo daa wommat giléem yi dadaa wayantoo nag waaye woo xam ne day tax giléem yi dañuy daw xel yoo xam ni day day ëpp xel yañ daa daw bu fekkee kenn wayut yonente bi nag daa ko wax naan ko rifqan bil xawaariir maanaam jigéen ñim mu sëf da koy wax ne yërëm leen bàyyil way yi ndax gilem dañuy yëg mbekté dañuy gëna daw dañuy gëna sawar dégg nga moo tax ko rifqan bil qawarir ya an jasa ruway daka bil qawarir waxna ko ci bëri kon lolu sayidna muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xam moy ki gën ci gën ñu def kaabu kaabu ibn zuhair bim mu bam taxawé ci digg jàkka ji di ci khasidam gogu banat su'ad faqad bil bam accès ci inna inna rasula la sayfun yustadaau bihi yonente bi daal simmi mbubam sànni ko alayhi salaatu wasalaam kon kooku xam nga ne waaye yooyu def na def na ci moom dara Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu keroog bi ko Cheikh Sidiya Baba waxee ne ko yarda ida jarat al umuuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha laa taxjubu l asbaabu anhu xaqiqatan intaha fi zulumatiha mantaha dafa wax ne al aana madaxana mooy léegi mi ngi mi ngi may doog a tagg nag loolu la sëñ bi wax kon waye boobu kon moom jeexital na ci moom a jëmmi waye rek day jeexital ci nit ba ci mala sax day jeexital ñoom waxuma lak nag waxi sëriñ bi nga xam ne moom day jóge ca xolub Sëriñ Tuubaa ak ruuxam gu sell googu ak pëstéef ba mu defee waaw Sëriñ Tuubaa bu kawee la daa bind xasida kon loolu te waxi Sëriñ Tuubaa dafa kawe ci loolu li mu wax ne xawli ya xawlun yuxjilul marjaana wa durra wal yaquuta sa sajaana loolu li mu wax ne ilaa maliki qad quttu fi xidmati nabi ajiban daha man qad sama fi lugaatihi maanaam jëmmi wax ji moom dafa yéeme moom dafa ci ko xam ne dafa dégg arab ni rek mooy moom dara gënu ko yéeme muy wax joo xam ne itam sëñ bi dara wax ne ca waxul mahfuz la bàyyi ko sëñ Tuubaa dara wax ne mbind mi ca lawxul mahfuz la bàyyi ko dara wax ne man sama sama bu may bind sama maanaam alliwa ji may bindee day jànloog lawxul mahfuz lawxul mahfuz nag baat la bo xamni yag nañ ko wax way kenn xamul lu mu doon deug deug am na nit yàlla yo xamni ne koy jema dañ jema way yoy yàlla ci moom moy wut ku ci wax dara waaye sëñ bi tax ne mom buy bind alliwa ji day jandok la maxwus li di wax ne wajaha lawhi wa qilami lawha wa qalam alladhi hada wa awha wax ne itam ne li ñuy li muy bind lépp day tuxo jigo ci lawhul mahfuz ñëw ci ñëw ci mbind mi nga xam day jaar ci mom rek mooy dama wax ne yanqulu xatti min allawxi wa min qalamihi wa fi xurufi lam lam amin wax ne itam aktubu naaqila min allawxi wa min qalami wa fi xurufi lam amin wax ne itam aktu aktu anqulu min lawxi ilahi wal qalam wax na ci lu bëree bëree bëri wax na sax ne am na foo xam ne sax day wax ne jëmmi mbind mi mooy tuxoo foofu ñëwal boom <laughs> kitaabati min lawxihi tantaqilu nga xam ne mbind mi mooy mooy mooy tuxoo foofu ca lawx ba rek ñëw waaw ndax Sëñ Tuubaa wax na ne da ci am wax yu rëy wax yoo xam ne moom wax na ne qaada li sadriya al alimu lkutuba bi xarqi aadatin wa qaala liktuba ah qaala yaqul lisaanul li alif bila taraddudin fallahu min ka qabila dafa wax ne yàlla dafa jël mboolem téere yëpp sotti ko sama dënn ne ma nag bindal nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Diop da nga wax na Sëñ Tuubaa bu daa bind suñu borom ci moo koy wax bindal ukkutub bi sarixi ukkutub dañ koy wax bindal nangam ak nangam mu bind ko fi ne xasida yu bari daana ko def wax ci dara loolee mu ca wax maanaam waxtu waxtoom jotagut mu dindi bayit ya koy tegtale bu demee ba waxtoom jot mu dugal ko ci lu mel ne xasida gi mu def ci bi mu def ci géej gi ay yasa minit la xooy nda jabal yaakaar naa googu la wax ne yasara lil mun naa la daal la daal la daal li man xaada li maa xaaba an kulli wali li xaada ahla badrinil usuda ñaari bayit yooyu ci njëreem la ko ci dugale xam nga ndax mooy feeñu ahlu badrin sëñ bi dafa wax ne dafa sartoon teg ñoom ci ñoom buñ ko nettaliwut moom du ko wax moo tax bi muy def xasida gi inna ibadiya la moom la ko tënkee inna waliyallahu alladi nazala kitab waxtal saalin wala inna ibadi laysa laka alayhim sultaan waaw inna ibadi la ko tënkee yàlla dogal nag bu ñëwee ba ci eh, yaa gi ak laam gi xam nga yasaral li mun a ak lii qaada ahla badrin wasar ñaari ñaar yaa gi ak laam gi mu tëb ko mu maanaam mu mu dindi ko nga xam nekkutoon ci xasida gi sëñ Modou Lamine bi ñëwee ba njëreem la am ku jógee eh, Gabon ñëw nett li sëñ bi ne ko tubaab yi de ñu ngi nett li ne dañoo gis ahlu badrin maanaam nett li nam demee sëñ bi dugg ci biir génne xasida yi boole ci ñaar ñaari béer yooyu ñenn ci la ko doog génne sëñ bi daal loolu moom moo tax moom noonu moom luy mbiram léppam daal dafa yéemu kon yal na yàlla defal tawféex yi nu mën a xam dayo bi ndax lépp ak leer la maanaam xasida yi eh, maanaam leer leeru suñu borom moo ko fees dell waaja wajaal tawaalif yi anwaaran tanuur saatiatan bi xurmati nuuril munir ko waxee maanaam jëmmi leeru suñu borom moo ci ne kon nan ko fonk kon ñun ñi koy jàng nag Warna am teggin yo xani mom lañ koy jànge dé nga ndax mbir mu ne itam bala nga ca jarignu dafa am aw yoon niñ ci mëna jarignu niñ ci mëna nañ ci mëna yaqulay rawata nak ginaaw bis bi mo sabu waxtaan sax nga xam ci fa lañ wara dajé daje teggin yi nga xam mom la señ bi wax ni mom lañuy ñuy eh, manam manam mom moom defé ñuy yalla tudd kenn ku ne ci warna ko jema lambo xam ngeen ni maanaam tudd yàlla Sëñ Tuubaa wax ne mooy lekku xol mooy lekk ruux wa alam bi anna dikra quutul qalbi loolu Sëñ Tuubaa wax maanaam ruux li muy dunde mooy tudd yàlla suñ jëmm yi mooy dunde lekk yeeg naan yi nga gis waaye roox gi moom tudd yàlla lay dunde léegi nag tudd yàlla ginnaaw moom mooy mooy lekk gi gën a sell ci xol ak ci ruux dafa am lu mu aaje comme lekku àdduna gi rek tey booy lekk faw da ngay raxas sa loxo boo raxas sa loxo dafa am microbe yu nekk sa loxo yoo xam ni boo ko lekkaalee dalay jural feebar nga xam ne lekk gi moom joxu la feebar bi waaye microbe yi nga ko booleel moo la jural feebar bi tudd yàlla itam noonu la xasida it noonu noonu noonu la demee su fekkee ne bi nga koy jàng da ko war a ànd ak ak laab dégg nga jàpp boo waree sangu nga sangu te gis nga booy lekk ci lekk adduna gi da wax bismillah sëñ bi wax na silkul jowaar ne bis bismillah bismillahi rahmaan rahim boo bismillah boo ko waxul seytaan yi dañuy bokk yow dégg nga moo tax kon yéene ji nga xam ne moom ngay jàngi xasida itam lu ci am solo la fii ne am na ñoo xam ne ci ñu bari ci noonu yéene yi ñu jàngi xasida yéene yoo xam ne moo leen jural sikk yu bare bare ndax yéene adduna rek lay doon te dara àdduna nag maanaam mënta ànd ak mbirum sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mook adduna moom defuñu neen dafa jaay adduna moom jëndee ko àlaxira kon maanaam yéene yi nga yéene yëpp na doon loo xam ni sàkku ngërëmul yàlla la ak sàkkoo bégal sëñ bi ak sant suñu boroom ak yu dema noonu waaye bul ci dugal yéene yi àdduna yoo xam day xajamal eh, maanaam yaana yéene ji su ko defee itam li nga ciy jël itam xam nga benn bisi moom mën nga ci jàng lu la neex du la indil jafe-jafe waaye li ngay saxal moom na doon loo xam ni quantité boo xam ni dana tolloog sa sa sa sa gis nga lekk ko àddina gi am na boo ci dee jël lu ëpp bis bu ne mën na laa jural wéradi boo dee lekk lekk goo xam ni dëpp ak sa sa sa sa sa jëmm mën na laa jural wéradi waaw kon li ngay saxal itam loolu lépp da ci war a am mooy del jël lu yem ci sa ci ci ci yow ak sa sa xol ak sa xel. te itam di jël itam li depok sa mooy xasida di nga xam mo gëna mo la gëna a neex rek gëna depok sa sa sa sa xol bu ko defé loolu mo la jiitu kon dal yene yi moy na nga japp yoy nek ci làpp te tewlu yene tewlu gi nak li ci gëna a ëpp solo moy tewlu sëriñ bi japp ne mi ngi mi ngi jataay yow dal bu ko dee da nga and ak war ma juri rëy manam bo bo jappé ne sëñ bi ngi jataay yow mi ngi tok mi ngi lay gis di nga am no no no doxé yu bari di nga ko bàyyi xel bu ko defee itam ngay jublu penku te nekk ci bërëb bi nga nekk itam di bërëbul laab bàyyi coow leeg wax ji ndax wërdul maaxoos bi nga xam ne mooy wërdu wërdu yoonu murit gis nga Sëñ Tuubaa dalaa déglee ku koy def bul ci boole jenn wax ku la wooyut bu ko wuyu xanaa lu may sa waajur bu la sa waajur wooyee mën ngaa wuyu waaye boo noppee na nga tàmbaliwaat loolu la sëñ bi digle woon xasida yi mënees na koo balloo foofu waaw bu ko nga fexe ba xayn lu neex loolu lépp sëñ bi wax na ko ca masarikul jinan wax ne wa udda min adabi dhikri dhakiri julusu abdin fi makaanin taahiri mustaqbila qiblati da tarabbu'i aw mutawarrikan kaman salla fa'i طيب رائحة لا تخلو مجالس الذكر إذا ما تجلو عن الملائكة باستماعي ومؤمن الجن على, على الإجماع وعد إخل وعد و ميغوك آه. wa udda ikhlas al fata bi tasfiya adkaarihi min kulli shawbin fadriya te mooy dafa wax ne jataay yi nga xam ne ci ngay tudd yàlla da nga toog ci bërëb bu laab da nga jublu penku toog toog yi nu mel ni kuy julli xeeñ lu neex ndax ba jataay yooyu yi dañ fay ñëw di diglu si comme ni ma ko waxoon ci xadis bu njëkk boobu te itam nga fexe ba lépp lu bu ko dara rax tudd gi ba wala dem ci yaa nga bëgg a def waaye waaye boo diir bi ngay jàngoo mu ci boole leen bu ko bu ko rax Sëñ Tuubaa yi daana wax ci loo xam ne xëy na ñi koy saxal ndax kenn ku ne ci ñun xëy na ñëkkut xasida yoo saxal di ko jàng wax na ne waxris alal ixlaasi wal ixfaai anil wara tum dax la dal jisaay mooy na nga fexe ba ñaari yi nga sàmmante ko mooy sellal ko te itam di nëbb sa kem kàttan li ngay def bu nit ñi xam li ngay def bul nettali li may def ak yi may gis ak yooyu Sëñ Tuubaa sax ne yow na nga jihad ak sa bakkan ba bu ko def ndax dara wax ne fa jullu ma baana lahum minhu fala yaksuru naf'uhu ghadan isu tala moy li li nit ñi xam ci li ngay def li jëpp njariñam du bari fa tuya tuyaabaam du bari dayom du bari du dis itam bala mo dis deug deug am dayong, nga nga yayo ci ay ay ay cër masalan ci sun borom faw day doon lo xamni yak yalla rek yéen ko am ak digganteeg serigne bi nga xam ci moom nga jaare kon maa ngi jégg lu baax guddal naa sax waaye bis boobu daal ñoo ngi ñaan ñëpp lu ci waay man nga nga nga def ko ku ci man a taxaw rek noo ci mën a jàppe rek ndax kenn ku ne am nga foo mëne am na ñoo xam ne jàng xasida lañ man nañ dem ci jataay ya jàng fu xasida ku mënta demit fa nga toog nga yéene jàng la nga jàng te yàlla tax ñi nga xam ne itam mënuñoo jàng xasida waaye mën nañoo def xidma itam ñu yor seen kattan dem ca bis ba lépp lu ñuy lu ñuy yëkkateeg lu ñuy tegal loolu lépp ñu fexe ba jàpp ci tuyaa ba dañuy fay gaa yi jànq ci lañ leen di fay incha allahu taala duñ leen ëppale dara ñi nga xam ne itam mënuñu loolu lépp waa yor nañ seen alal te bëgg koo def ci yoon yàlla it mën nañ ko def ci bis yu mel noonu waaw ñooñu ñëpp ay amuk fay te kenn du ci ëppale sa morom <laughs> incha allahu taala bu ko defee itam ñoo ngi sant rek sëriñ Xamsatu mi nga xam ne moom moom lañ koy defee fa moom. di ñaan yàlla yàggal ko di jëmm joo xam ni itam moom dañ koy ñaanal rek ndax gis nañ ci moom melo woo xam daal am nañ yaakaar ci ne bu ko yàlla yàggalee te musul ko ci mbooleem ndog yi lu bari dana saafaraw ndax moom moom daal loolu rek lañ ci mën a wax man ma maa ko ba sëñ Alaaji Mbàkke moom suñu saab sa laa njëkk àndal dem këram boobu sax moom yaakaar naa fàtte na ko booba yàgg na booba man laa lañ jàng kër sëñ kër sëñ Abibu kër sëñ Abibu maa ngi fa nekkoon diggante 95 96 97 booba nag man biir kër sëñ Abibu laa nekkoon waaye dama laa dem bu ma masaa jàng damay dem sëñ Laaji foofu ci waa kër sëñ Musaa Absa yi fañ nekkoon sëñ Laaji nag yàlla dogal boobu nu taxoo lool am nag eh, laylatul xadar goo xam ni dana ma nan dem eh, sëñ kër sëñ Musaa xasida foofu la ne ba mu guddi mu ne mën nan dem sañ sëñ Amsatu boobu mi ngi ci këram gi nga xam ne soriwul daara sëñ bi bu ca ginnaaw waaye ba léegi jataay ba duma ko fàtte maa ngi ko fekk boobu mu toog yor ak xasidaam jublu penku sol nag yëre yu woyof yor woyof googee nag ba léegi moom moom moom la moom la moom lay moom lay doxe woyof googee ba léegi soppi ko wut ndax woyof googu moo jur moom tànk yi mu doon dox ko sëñ yàlla ci keroog te noonu ñi ñëpp kenn ku ne sa kër wala fa nga ne fekk na la fa te loolu maanaam maanaam mën na ko ëppale boppam kon woyof googu nga xam ne moom jataay boobu duma ko fàtte mukk ba léegi gis naa ne ma nga ca yàlla na ko ci yàlla saxal ndax sëñ Tuubaa ci loolu rek la nekkoon waaw sëñ Tuubaa borom daal moom tamit dara wax ne jikkoom moo ko booleeg ñu bare bare bari wilaaya gi dëgg la lépp dëgg la baatin bi dëgg la waaye nag jikkoom am na ñoo xam ne bu woon a jikko ji ànd ak moom jikkoo ma ko boole ak ñoom yàlla na yàlla defal tawféex te defal ko tawféex te mboolem lañ fa def lépp yàlla na ko yàlla nangu te yàlla yàlla def ci moom lépp jàll ci jàmm ci daraja Sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah eh, jërëjëf eh, sëriñ Ahmadou Mbacké eh, ci kàddu yu matale yooyu mbokk yi yaakaar naa comme ni ñu koy faral di waxee rek saa su nekk. yaakaar naa képp koo xamante ni rek yaa ngi ànd ak eh, ñun ci jataay bi jëlaat nga yeneen i tomb tey jii ci jataay bi nga xamante ni àndoon nañ ko suñu kilifa gii di Serigne Ahmadou Mbacké di ko ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax ba naal wi nga xamante ni naal na ko suñu boroom gën koo kàttanal gën koo taxaw bu baax a baax a baax ba mu eggal ko jàmm ci sagoom macha allah nii rek mbokk yi lañ koy wéyeek yenn ci suñu yeneen i jataay incha touba vision ak guymide tv inchallahu rabbi kon dañuy daal di yëkkati jataay bi di leen jox dig daje suñu yeneeni jataay kon wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu